lay bëree bëri lay bëree bëri te Burkina arbitre bi soufflé diggante Nigéria Burkina Nigéria moo leen wan ginnaaw ñoo amee ceinture rouge Burkina ceinture bleue Nigéria jël na dóor na ci suuf lay Nigéria na dóor ci amuñuy caaxaan waa Nigéria Nigéria yëkkati na door ci suuf amuñuy caaxaan. Nigéria dëkk Jëje Okosa Nigéria dëkk Kalu Nigéria dëkk Baba Ginda arbitre bi sifflé waat na Nigéria Burkina Nigéria rouge Burkina bleu Nigéria rouge Burkina bleu Nigéria rouge Burkina bula Nigéria yëkkati na Nigéria rouge Burkina bula eh Burkina mbot na Burkina mbot na Burkina mbot na oh, oh. lii mi ngi door am oh, bi affaire bi tàmbalee ba léegi mi ngi door am Nigéria ba moo amee ceinture rouge Burkina Faso ceinture bleu Nigéria Burkina Nigéria Nigéria jël na tànk day galgal oh Burkina daan na Nigéria Burkina daan na Nigéria deuxième victoire Burkina Faso Burkina daan na Nigéria deuxième Burkina bor ndomba da lay yëkkati da lay yëkkati da lay yëkkati Burkina da wër waaw waaw da lay wër ndomba wër ndomba la lay def Burkina wër na ko ndomba Burkina wër na ko ndomba simple Burkina wër na ko ndomba waaye Nigéria da am doole Burkina wër na ko ndomba waaye Nigéria da am doole Burkina war na ko ndomba day daam doole daam doole daam doole daam doole neexut a yëkkati daam doole da koy bàyyee yaram wi oo daan na ko Burkina Faso troisième victoire 3-1 3-1 waan na Nigéria moo leen won ginnaaw am ceinture rouge Burkina ngeen jàkkaar am ceinture bleu man foofu waaye yii tur ma ko wax Cheikh Omar Bour la laaj jël na bi eh na ko wër ndomba da lay yëkkati da lay yëkkati da lay yëkkati Burkina da lay wër waaw waaw da lay wër ndomba wër ndomba la lay def Burkina wër na ko ndomba Burkina wër na ko ndomba simple Burkina wër na ko ndomba waaye Nigéria da am doole Burkina wër na ko ndomba waaye Nigéria da am doole Burkina wër na ko ndomba ey daa doole daa doole daa am doole daa am doole neexut a yëkkati daa am doole da koy bàyyee yaram yoo daan na ko Burkina Faso troisième victoire 3-1 3-1 Salar Djine bismilahi ma dee ci